doy na nag. mariage bi ni mel mariage bi ni tey macha allah lépp loo xamante ne ni wàllum logistique la yaa koy gérer muy décoration et consort alors qu'est-ce te fait déjà. waaw mais instant bii ñu ci installation yi ñu ko gisee génn nañu matériel yëpp. Mhm. vraiment génn nañu lépp. Mhm. pour defar ba mu baax. d'accord d'accord d'accord alors kan mooy Maggi. Mayib Baat euh, Mayib Baat benn seen la boo xam ne dafay dafa dafa dafa gëm boppam. commencé ci euh, événementiel dugg ci. en mhm. deux mille deux mille dix huit. Mhm. yaakaar naa boobaak léegi six cent la def mais ñu ngi doxal. góor mhm. ngi góorgóorlu ñi ngi xool li nga xam ne bitim réew la nekkoon. di lu baax ñu koy jéem a indi Sénégal fii fii dëkk. nga xam ne fi lañ am quoi. d'accord sa relation ak yaa awa ba tey jii nii mu wootee mariage royal jox la lépp loo xamante ne ni wàllu logistique la sa mooy que liggéey bu baax liggéey bu baax moo waral tey liggéey lu baax donc soxla ñu contacté ñu ñëw defaral ko bu mu baax quoi d'accord kontaan nañu ak a bëgg woon ay jaajëf alors euh, décoration bi may moo ko géré waaye aussi am na koo xamante ne nii lépp loo xamante ne nii wàllum organisation la mën naa wax ne mooy protocole événement bi moom la fi yaa awa bàyyi mooy gérer dugg yeeg génne yi ma ne ba daal di koy nuyu bàyyi ko mu saafonteex mbokk internet yi. oui maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ah di kontaan si yéen bu baax a baax a baax. <laughs> Hmm, alors sa xarit sa jigéen woote bés. Mhm. est ce que ça te fait en tant que càmmeñal yaa awa. non yaa awa sama yaay la d'accord. sama yaay la quoi nekkul sama jigéen sama yaay la ndax yaakaar naa fi yaay la waral ma féete rek moom foofu la ma féete en fait nekk nit ku baax nekk mhm. jigéenu jàmbaar mhm. lu mu ñàkk si àdduna yaakaar naa ne mbokk moo tax amu ko ndax nekk na jigéen joo xamante ne jàmbaari fàkk tëdd la mm. koo xamante ne lu góor na bu ma xëyee def ko moom guddi la koy def toog kon bés bi jomb ko mm-hmm. xamu na ne bés bi dina ko am nga mm-hmm. waaye xam ne fa nga fi nga xam ne fa nga juddoo mm-hmm. defee sa mariage loolu noonu lan moo lay wan ne carrément moom li muy waxee chaque jour rek si moom la nekk lu ñu wax mu ne tëngéej laa am rio laa am te rio laay tiitaroo kon looloo tax ba mu amee bés bu toll su ko neexee mën na ko yóbbu kin faat wala radio Boston wala fu ko neex mm-hmm. mais comme que dañu rek Tëngéej laa juddoo fa laa màggee fa laa yor te fii lañ ma xamee fii laa mm-hmm. koy indi mm-hmm. kon nitam ku baax ku ne rek war nga sa fii tay <laughs> loolu def leen si ko ah. def leen si la ah jàppale na tee la rek ah. sam papa tee la rek waa léegi léegi moo am mm. moom ngeen gis ko si kanam tuuti mm. dina ko leeral ah teel a daal jàpp leen sam papa daal teel teel daal kon boog nañ ci def tey alors avant gu mariage bi lan ngeen di préparer si kanam si wàllum spectacle ci wàllum euh, voilà lumière son et tout ça mhm. xam nga yaa moom ku ko xam xam ko surprise mhm. tey moom incha allah rabi daan ngeen dem mariage yu nekk yéen euh, journalistes yi dem ngeen fu ne mais jàpp di ngeen gis lu doy waar lu soft mhm. incha allahu rabbi 100 pour cent ambiance la woote xale doomu réew bi incha allah rabi tey di ngeen xaar si di ku ne mën na fee ñëw incha allah rabbi hmm. fii ku ne mën na fee ñëw diggante max Wally Seck ku ne mën na fee hmm. Hmm. <laughs> kon boog mu ñu koy xaar <laughs> ay ca <laughs> yi ba tey ñu ngi si avant groupe ya ah, nañu dugg découvrir gis ngeen nest li nga xam ne mooy euh, service traiteur bi ñëw leen ñoom nag si wàllum installation la ñu nekk ndax avant goût la ñu woote euh, fii ci Tëngéej mariage bi comme ni ko xaritam bi waxee doomam ji waxee yaa awa rasul ku modeste la mënoon na ko yóbbu tey par exemple King Fahd Palace wala mu yóbbu ko Radisson wala teeru bi mais elle a préféré defee ko fi nga xam ne mooy Tëngéej fi nga dawalee mbégee fa la oto gënee ñu dugg ñu ñëw si euh, service traiteur bi ah waaw nañu nañu nañu ñëw si service traiteur bi d'abord sama gars yéen a ngi cool ah mu ngi naaj ah ayca léegi-léegi xaaral ma ñëw alors ñu bett ko ah <laughs> sama xarit la mhm. sama complice la lépp la ñuy waxtaan bëgg ma lool ma raw ko bés bii rek laa ko doon ñaanal boo seetaanee appel bi passé dama ne ko balaa appel déwén incha allah li ngay sonn ci appel di ko ci daj barke bàyyi laay mun a ma ne ko balaa déwén mhm. yàlla dina la may jëkkër ju baax bu la attan ba booy appelaat sa borom kër day toog sa wet barke sëriñ Babacar Si nii laa ko waxee alors laataa muy xuus faneen ci euh, jëkkër jooju lay laay taxaw mhm. dañu gis à chaque fois tey mais ci nekk day posé wu moo takk yaawa kan moo takk yaawa kan moo takk yaawa rasul bu baax ko takk góor gu baax góor gu yiw mais boobu la ñëpp bëgg xam. tee bi ci kanam léegi di ngeen ko xam mu ngi ñëw fii toog langal ñeenti rasta. Euh. di ngeen ko xam alors yaa awa la. qu'est-ce que ça te mu dund tey ba am bés bi nga xam ne képp kuy waajur képp kuy mbokkal lii rek ngay ñaanal sa doom. xolam rek yaa awa tey ba am la ko yàlla fay. Ah. teral waajuram la ko yàlla fay. Mm-hmm. bëgg mbokkam la ko yàlla fay. Mm-hmm. balaa ngay bëgg kenn da ngay bëgg say mbokk ba pare. Mm-hmm. yaaw ay mbokkam la njëkk bëgg. yaaw ay mbokkam la njëkk a teral taxawu yaayam mhm. ba yaayam génn àdduna mhm. bàyyi ko fekk waajuram bu góor mhm. mu gar ci bakkanam bàyyi ko fekk macha allah ay frère am ak ay sœur ba tey rek la mu gàccoo woon mu ko gàccoo newul sama yaay dina naan a yàcc déedéet bëgg famille yaaw balaa moo am jàmm rek daa bëggal ay mbokkam ba nu bég balaa muy def dara ci biti ci ay biir néegu ndeyam ak baayam la ko njëkke du sàmba àllaa di xale bu baax barke yonent bi am jom dafa am jom lu góor ne bu tey laa koy def moom ba bu góor ne dama koy def suba moom léegi balaa tëdd def ndax am jom ñu koy ñaanal sëyam bi yàlla na ko yàlla barkeel mhm. nga xam ne lépp lu mu sonnoon ci yaayam ak mhm. lépp lu ko ña yaa ay waajuram ñaanaloon mhm. gis na ko tay ndax yàlla may na ko jëkkër ju baax jëkkër ju ko macha allah bu ko àttan bu ko bëgg ndax jëkkër da lay bëgg te bëgg na ko yërëm na ko te xam naa ne dina ko téye yaa jëkkër ju moo di ngeen ko gisee si kanam. ku bëgg a xam ni surprise internet yi ñu ngi laaj moo takk yaa. waaw léegi surprise bi léegi si yaay ji ko bëgg a testé. yaay ji lañ bëgg a testé yaay ji moom di leen ko wax. yooyu yaay dañu wax maa ngi ñëw léegi. ah ñaari njool la woon. <laughs> du ministre ministre bu la. non moom daal PLA e li muy liggéey daal PLA e commencé am. Ah, déedéet du PDG. la milliardaire la wala <laughs> milliardaire. pro la. Ah. xam la mais dañuy wax tur bi kenn. dee leen pro la ci kanam di ngeen ko gis. sama goro bi nee ko. mais madame nan la. ci kanam di ko mais madame sant xanaa ah, mën ngeen di jaay. ah xanaa ci kanam. madame xanaa ci kanam di ngeen ko xam jàpp leen tee bi rek. commencement tur tee sakk tee. ci kanam ngeen gi tee tee. mais mère bi mu oyof. noonu na defee li nga xamante ne moo di mariage bi. Mm-hmm. si yu mag yi. dëgg la ñëwaat ci li nga xamante ni moo di dëkkam ñëw ne fii laa ko fii laa bëggee mu amee fa. dëgg la moom lu ma am tëngee jox ko gën moom tëngee gis nga moom dañ naan fier d'être lébu. Mhm. moom dafa fier d'être lébu. gis nga ci biir waxam sax boo ko déggee buy wax danaan man léebu laa. Mhm. man tëngeej laa dëkk tëngeej laa juddoo falaa màggee falaa yaroo mhm. yaa ngi dégg moom loolu rek mooy waxam kon tey jii boo na takk bu sañoon sax appelam fii la koy desee mais ay xaritam mais tey moom bi biñ na takk pa bañ na takk papam di ko ñooñu di ñëw di waxtaan si balaa ñuy wax papam di wax dana man papa fii laa koy defee te xam naa ne am na kilifa boo xamante ne tey jii bu ñaanoon papam ne ko dama koy defee fee papam da fay may mu defee ko ndax doom fi mu la teg rek nga koy teg mais dafa ne papam fii laa koy defee papam ànd ceeg moom mu ngi ci biir mu am kilifa lool yaaw du def dara te tàgguwul baayam parce que moom la fi desee du def dara tàgguwul ay mbokkam du def dara tamit tàgguwul barke Sëriñ Ba. alors euh, dernière question ah. ñu gis que ni Yaawa dafa fas yéene jóge si benn statut muy statut célibataire pour mhm. dem statut marié. Mhm. ban conseil nga koy jox en tant que yaay. yaay day yaa day sëy ba de gis na ni yaayam nekkee woon yaayam bi mu toogee dee rek ko ko fi jëlee mës sa jóg. yaaw day doon dafay donn sëy ndax yaayam dafa sëy ba ba ñu yóbbu ko jàmmalaay mhm. day sëy ba dee incha allah ci kàttanu yàlla yàlla na ko yàlla musal ci cat ak làmmiñ ak bët yàlla fay ko xolam ci sëyam bi lépp lu mu sonn ci waajur mhm. yàlla na ko yàlla fay mhm. yàlla sëyam bi yàlla nay benn sëy yàlla bu mu ci gis ko naqari ci barke sëñ Babacar si barke Baye Laay mi mu bëgg barke Chérifou Seynou nga xam ne mooy na moom lay nooyee ba ci kanam na ba ma solo ba taay naira ba manya manya Vai Sede, vai Sede. Vai Sede, vai. Sa papa, dina ko tabo, kay mo na ngon. May may ka ba? Do ko dimbale rek. Do tim, so so bay. So na. Do gene ni ah.

Hey! yow sa secrétaire wax la ñoom rek ñu ngi wala sa secrétaire. yow yaa may wax fi may taxaw. waaw. Hey, hey, hey,